doom ah ah ndénkaane dafa for moo raw njureel nañ ci bàyyi xel waaye xale yi sonn nañu mbokk alo allo waaw maa fii ça va. naa def ça va alhamdulilah. yaa ngi waaw maa ngi sant yàlla. Tata Mbaye man dama laa bëgg sama xol. maa la raw maa la raw chéri. Tata Mbaye tax ma ci tànn TV. ndeysaan ndeysaan. Tata Mbaye man dama doon jàng mais sama jàng lii moo tax lii moo ko yàq émission kër ko yàq. déedéet kay. man dama doon su ma wàccee 1h nii. waaw. léegi ma dugg cours dama dugg dama ci tànn bu mu jeex. ndeysaan. ma soog. bëgg rek. dëgg la dëgg la ma fi ma la man la ñaan ci barke Seydina xam ne yaa la bëgg ma amiin amiin amiin ngeen mucc rek yàlla na ko yàlla may. yàlla leen rek. mais li ma dégg fi tamit kan bi tamit metti na trop. dëgg la. ndax man maa ngi dama nekk ak samay rak sama yaay nekk sama papa nekk. Mhm. mais sama bàjjen daf maa bëgg. samay rakk yaa ñëpp ma bëgg. waaye boobu moom soulagé na ma alhamdulilah. Ah. lépp nga bëgg man daal maa ngi ñaan sa émission kër gi yaa xam ne bu yàlla na ko yàlla defal. wallaay wallaay yéen ñëpp ngeen mucc rek laa bëgg. Ah, tout le temps dañu bàyyi xel moom waaye boo amaatee occasion dellul nga jàng dégg nga. ok kër gi dinañ leen ko lijjantil ci beneen heure. waaw su di leen ko defal rediffusion. waaw loolu dinañ arrangé. incha allah dinañ ci bàyyi xel. waaw ah, waaw Tamba est-ce que mën naa am sa numéro. bu la dara naqari bul coupé dinañ la ko jox léegi. waaw waaw. ndeysaan jërëjëf jërëjëf xam naa xale yi nga xamante ne ñu ngi toog di seetaan sax euh, te dund lu mel nii xëy na mm, am na ñu bari ñoo xamante ne bëgg nañoo wax ak man waaye ma leen di wax rek euh, ubbil naa leen bunt yi téléphone yaa ngi noonu xëy na guddee gi kay laay ñaawlu ndax léeg nit oo la minuit wala mu oo nangam sangam bu boobaa day fekk euh, say sa coono yépp dafay dellu ci sa kaw ba tax doo mën a déglu yenn yi kon maa ngi leen di ñaan. bu ñu découragé euh, am na loo xamante ni euh, nit dund na ko nee na lu mel nii waaye nee na yàlla boole na ma jëkkër joo xamante ni man xaw ma lan laa koy wax xaw ma lan laa koy fayee parce que jébbal nañ ma ko sax xamul li nekk ci man xamul ki ma ko def waaye uuf na ma yiir na ma jàppale na ma xoolul ci man loolu te ba sunu jon yàlla tey sama benn mbokk xamul li ma dund ak moom ñëpp jàpp nañu ne rek euh, biñ ma koy jox jànq laa woon te xëy na peut-être amaana ñàkk jànq googu am na ku ma ko teg koo xamante ni moom a violé woon waaye ndokk yàlla bi ma yàlla wàcceelee jëkkër ju baax yàlla mën na leen dajaleel yéen tamit ak jëkkër ju baax kon bu kenn xaru bu kenn mer jàpp leen tëw yi ñod bu daggul dikk mbaa mu yendoo teng boo ko weddee nekk fa seet ba yàlla indi borom kër bu baax allo Tamba Yem. waaw maa ngi nii rek. <laughs> maa kontaan lool ci émission bi. ndeysaan maa a kontaan. li <laughs> ma dégg nag dafa triste trop. dëgg la walaay triste na ne ne tuuti. Mm, ay yar la waaye nag waaye nag dundu ñoom la ñoom ñun la yàlla may alhamdulilah alhamdulilah. man de Kaolack laa yaroo. Kaolack nga yaroo. ak sama kër nijaay bi ñuy wax Abdoul Bayoro. ndeysaan Abdoul Bayoro. waaw waaye ñun amuñu jooy yaay jooy papa xam nga suñu yaay ak suñu yi. ndeysaan Badou Abdoul mu baax mu ñu mu mag ma ñuy wax. waaw moomu. ndeysaan ndeysaan allah. Kaolack waaw. dëgg la. lu baax li may defal nañu ko. ndeysaan. ñun kooku noonu lay mën a mel. Samba nekk foofu duñ xiif. di ñu mar te xoolee sa kanam triste mu ne lan la. loolu la loolu la boo yilifee noonu ngay doxalee. ñun tooyul dara. dëgg la dëgg am ñaari jabaram yoo xam ne. nawet la ak ñetti maare. ndeysaan. jàpp ñu comme xol dafa tooy. ndeysaan yal na yàlla bàyyi la ak sa sa sa sa ñooñu la yar. nag du ñu rek de depuis suñu yaay ba léegi. ndeysaan. ñun jooyuñu dara. kooku mooy buuru kër bi lay wax ndeysaan ndeysaan maa koy ñaanal nag gudd fan amiin amiin moom ñaari jabaram yooyu ndeysaan yàlla bu ma doon lim di jeex tàmbayal dëgg la dëgg la yàlla da koy fay sax nag yàlla na ko fay. yàlla da koy fay. yàlla wéral ay cëram yàlla na ko fay yàlla baax na jërëjëf. maa yàlla moom. koy waxee. yàlla baax na jërëjëf maa fii. maa ngi lay tàggu jërëjëf jërëjëf kontaan naa bu baax a baax. jërëjëf kontaan naa kontaan ci kooku góor gee géego nga xamante ni moo ko yor euh, Abdoulaye Ba Yoro defe naa noonu la euh, kontaan itam ci képp koo xamante ni yaa nga Kaolack ajaratu Fat Mbacké Niass jikkoom xam naa ni melut noonu kër Diouf mi nga xamante ni day def ci jaami yàlla itam fekk baax ca Kaolack jamono bii mu nekk Dubaay itam bàyyi nañ ko xel bu baax a baax te xam ni melul noonu waaye nuyu ziar itam euh, ki nga xamante ni mooy madame Seck nekk Abu Dhabi soxna Fat Seck itam madame Jibrilu maa ngi koy nuyu bu baax a baax ñoom ña nga Abu Dhabi bàyyi xel itam euh, ki nga xamante ni euh, rek euh, moom moo nekk foofu ca Makka di suñu càmmeñ di suñu lépp nekk itam koo xamante ni wax dëgg yàlla nitu yàlla la maa ngi koy nuyu di nuyu soxnaam Sadio di ko bàyyi xel bu baax a baax mbokk ngi noonu ci ligne bi ñu jël ko. waaw. ça bien. ça va alhamdulilah. bien. man de maa ngi woote waaw nde. yaa ngi woote. waaw nde. waaw maa ngi nuy waaw waaw nde yëpp. toujours damay déglu sa émission. ndeysaan merci beaucoup. damaa kontaan ci sax. jërëjëf. dama laa bëgg ci yàlla tax. maa la raw te yàlla tax. damaa bëgg ma am sa numéro sax. sama numéro. waaw bul coupé ñu jox la ko léegi. waaw xaaral ma jox sama rakk dégg nga. waaw jox ma sa rakk. waaw. allo soxna Maya. waaw rakku jàmbur noo def. ñoo ngi kontaan ci yow. jërëjëf maa gën a kontaan ci yéen. li ngay def dégg nañu trop. ndeysaan alhamdulilah. li ngay def kay. Hmm. yaa xam li nga bëgg ci àdduna yàlla na ko yàlla defal. allahumma amiin ñu bokk ko ñun ak yéen. li ngay jàppale yàlla na yàlla jàppale. ndeysaan allahumma amiin ñu bokk ko. ñu ñoo ngi ba département Matam chaque jour ñoo lay seetaan. ndeysaan ne bu sax mais sa émission bi dañ koy seetaan. Matam Podor wu Rosso gi ñoom ñëpp nuyu naa leen. billaay ñooñu ba waawunde mais dañ lay seetaan. waaw maa ngi nuyu waa waawunde waa bokki jawee ñëpp bàyyi naa leen xel. kontaan nañu sa numéro nag la soxla. jërëjëf bul coupé dinañ la ko jox léegi merci beaucoup ñu jëfal leen bu baax a baax waaye bëgg naa mbokk yi bàyyi xel bu baax li nga xamante ni rek maa ngi koy ñaaxee waajur yi léeg-léeg euh, da ngay am xew xew am nga ne sama doom ji kat xam naa dina ñëw ndax maa ngi ko joxe bërëb sàngam buy ñëw danañ ko solal ba mu mel ni supame ndax lan bëgguñu ay waajuram sentir ne kii kat nii la mel wala froissé na wala nangam yére bu cher danañ ko uti solal ko ko nag mu ne ñum ñu defar ko nag daal di indi teg pour lan yaay ji am rafet njort baay ba am rafet njort ah kii li muy dundee xoolal mu solo sama doom valeur la koy solal du tee boo ne jàkk xool sa bëti doom ji nga xamante ni yaa ko sukk jur ci fartas yàlla ak sunas Muhammad yor ko ab diir boo xamante ni xëy na peut-être màgg na ci sa kanam bu meree di nga xam bu kontaanee di nga xam boo ne jàkk xool ay bëtam xam ndax mbégte nga ci am déet yooyu ñi ñuy trompé nañ ci bàyyi xel démb xale woo na ma ne ma man li ma frappé mooy li nga wax ne dañuy ca dëj ba lañuy ñuy commencé kenn ku ci nekk di tap euh, di di tippoo xale yi kii kay bàyyi ma mottali sama yéene la ma yéene woon yaayam ma mottali ko ci moom nañ ma jox diw nañ ma jox diw nga xëccoo indi teg boo ñëwee ba sa kër weeru yàlla laa la may xale ba fàtte la ma doon jooy waaye danga mel melokaan woo xamante ni day jàpp ne du kii moo toogoon ba ñëpp toogee di xëccoo mu ne man jox leen ma ma mën naa yor nañu bàyyi xel ci ne ab dëj nga ko jëlee woon te bis dina ñëw sa bos dina am yàlla na ñu jël ki ci ligne bi allo. allo oui. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ah, Adja na nga def. maa ngi sant yàlla baax sëñ bi tur naka la ak fooy ah, xam nga ci mu doon. damay hmm. damay damay def tur bi Paris la rek. Paris waaw d'accord baat bi xàmmee naa ko. xàmmee nga baat bi. ndeysaan xàmmee naa ko waaw. dugg dugg dugg jafe na ma lool lool lool lool yi. dëgg la dëgg la. ndokkeel nañ la ci anniversaire bi. ndeysaan. yal na ko yàlla defal anniversaire yu bëree bëri bëri bëri bëri. allahumma amiin ñu bokk ko. ba leneen fekk ko fa. amiin amiin ñu bokk ko. loo loo séntuwul sax fekk ko fa. ndeysaan allahumma amiin waaye bu ñëwee ma bokk ak yéen. waaw. Mhm. te thème bi thème naa ci dugg. waaw ay ca. Euh, sama yaay bu muy décédé. waaw. maa ngi jëm ci 14 ans. yaa ngi toll ci 14 ans. maa ngi toll ci 14 ans. Mhm. sama rakk ci gën a tuuti. waaw. ñu ngi toll woon ci 5 ans. Mhm. sama papa mënu koo yor. dëgg la. mu jox ko sama doom bàjjan mu jox ko sama bàjjan. Mhm. maanaam bàjjan décédé mu nekk sama doom bàjjan. waaw. Euh, ma ñëw jege fii dem foofu. Mm-hmm. xale bi ne ma. waaw dañ dañ dañ leen di cotiser loo pour ñu ndékki. day dañ leen moom moom lañ ko dénkaane woon ak beneen beneen moroomam. <laughs> xanaa dañ daan liggéey. ñu na euh, euh, cinq ans cinq ans et looy liggéey. ah kon loolu mooy demal fooyee sa bopp ci teel. nongo moo mu jëm ci rek ci affaire dénkaane mi dénkaane doy na waar lool lool lool wallaay doy na waar doy na waar lool wallaay doy na waar nit ñi tamit di moytu mhm. di yónni di yónni xale yi ñuy yónni xale yi surtout bi yónni xale yi mhm. xale xale kenn du ko yónni demal demal yóbbu añ demal yóbbu lii demal defal ma kii ci ay góor ak ah, demal baleel ko néegam demal baleel ko néegam. Hmm. Euh, du bëgg a sori parce que dafa am ñu nekk ci ligne bi. dëgg la. gis naa ko. dëgg la. ñu mo ñu moytu nduku. Hmm. sàmm euh, ñun ñi uuf xale yi. Hmm. uuf bi. uuf bi nañ ko moytu nduku. ndey dama koy bañ. ah, ah, ah yëpp rek bañ ko. man ci ci gémmiñu jigéen laa ko lañ ko tonnee. Hmm. mu ne man mu ne ñu ni ma mel nii dama samay xaritu papa ñoo ma ko def. est-ce que est-ce que. ñu moytandiku loolu. ñu moytandiku ko.